kaso ba fanaan fa ba génn dina dinañu xam ne fii nii nekkul foo xamante ni di nga fa yóbbu nit ci caaxaan nekkul di fa yóbbu nit ci caaxaan te surtout nit koo xamante ne nii yéen ñaar amul leen lenn loo xamante nii euh, boole na leen lu dul da ngay na wuute gis-gis ci réew mi nu muy doxe da ngay na wuute gis-gis ci réew mi nu muy doxe parce que ñii ñu lim foofu ñëpp bu doon ne dañuy toog ci plateau yi dinaan ah bilan Macky Sall bi moom moo nice ah stade bi waaye mënuñu ko woon a ñàkk. dëgg la mais ñooñu duñ mës a dem prison. wallaay dëgg la. bu doon discours yooyu la duñu mës a dem prison mais boo toogee nga ne. teel bi wala nga ni Ousmane Sonko sàcc la euh, defkatu ñaaw def la ak euh, defkatu lu eh, waaw. <laughs> doo doo mës a doo doo mës a dem prison. Mhm. effectivement donc euh, à un moment donné. ñi nga xamante ne nii ñoo naan ay Macky moo baax moo rafet. la xam ni yéen nangam sangam ñooñu <laughs> ñooñu tey mais imaginer yow euh, Madiambal Diagne waaw mu jotee ak le le euh, le président de l'union de magistrats du Sénégal Téliko Téliko mu dem tribunal ñu condamné ko mhm. ba léegi Madiambal mu ngi si biti mi ngi doon doxoon ci place ba di wut ay terrain <laughs> waaw <laughs> ma ngoo comprendre donc doo mën a comprendre dëkk bi euh, naka lay na naka lay doxee puisque bu nekkee ne ñii nii faruñu ak lépp te munoo wax xanaa xamoo euh, président Macky Sall sax ay nit di wax loo xamante ne nii bokkul ak moom lu muy xalaat moom moo ko waroon a mën a gënal que sénégalais yëpp ànd ak moom ci li muy wax. Mm-hmm. parce que nekkuñu si royaume. pour ñu ne démocratie. démocratie bu pour ñu ne démocratie am na rek il faut que xalaat yi di wuute. dëgg la dëgg la. il faut que xalaat yi di wute mhm. bu nekkee xalaat yëpp benn la <laughs> mais kon lan mooy jar ñuy def ay élection nañu jël rek choisir fa fa famille bi ñu jàpp ne moo gën a placé Sénégal ñu teg ko mu nekk buur. Mhm. ki nga xamante ni moo fa nekk bu euh, bu génne àdduna ñu falaat doomam comme lii xew au Maroc. Mhm. mais bu ñu demee ba ne démocratie la sénégalais dañuy dajale dañuy dajaloo votel kenn fal ko président. yow boo ñëwee nga am cinquante deux pour cent ah cinquante deux pour cent du cent pour cent. xamal ne am na 48 pour cent yoo xamante ni voté lu ñu ànduñu ak yow mais une fois nga nekk président ba prêter serment da nga naan nekkatul 52 pour cent ñoo ma fal mais sénégalais yëpp ñoo ma fal. damay très bien 100 pour cent damay def de sorte que ñoom ñëpp ma yemale leen. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey lan lan la ñëpp gis sentiment d'injustice deux poids deux mesures def nga lenn loo xam ne doo def lenn sax ñoom ñooy créer seen i affaire ne la yaa def lii yóbbu la prison xool Pape Alé yoo koo xamante ne nii. dem na fi procès tribunal. waaw layoo ba tri ba procès ba jeex ah kooku leer na la ne ragalul dem procès donc pourquoi doo ko convoqué comme ni euh, respons ni nga war a convoqué un responsable mu ñëw wuyu si la bu nekkee am na loo koy reproché nga reproché ko ko bu nekkee da nga koy téye nga téye ko ko mais bàyyi dimanche ba mu génn nga ne ko crip te leer na la doo ko posé question lu dul le lendemain. Mhm. loolu injustice mënu koo weesu. mënu koo weesu euh, injustice aussi mënul weesu dañ koy fàtte euh, souvent mooy femme Pastef bi nga xamante ni dafa amoon meeting ñu fekk ko këram violé ko rey ko. tey ba tey ba sànq mosuñu gis ku ko rey gisuñu benn responsable saañaa lan la tuddati. Euh, waaw Mariama Sagna Mariama Sagna dañ koy fàtte souvent. très bien mais am na mhm. beneen bu gën a garaaw Pape Matar. Uh-huh. boo xamante ni un responsable de l'APR maa ngi koy lire dem mu dem Touba. jote foofu ak benn chauffeur. waaw génnee pistolet menacé waa ji. Euh, waa ji dem porter plainte gendarmerie convoqué ko sëñ bi ñëwul ab kii la sëñ Mbàkke Baara Dolli ci dolli dolli yooyu la mooy ki ci nekk APR. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu convoqué ko 17h ñëwul mu nekkoon samedi dimanche ñu convoqué ko waat ko ñëwul lundi procureur ne kii il faut ñu woo ko pour mu woone permis de port d'arme bu mhm. waa ji ñëwul ba démb la ko Seneweb contacté mu ne leen di dafa amoon meeting politique moo tax wuy jiwul gendarmerie lundi da doon maye doomam moo tax amuloon jot xam naa mardi ba da doon noppalu nee na mercredi lay wuyu moom daal bu ko police woowee gendarmerie bi nga xamante ni mooy wër di téye waate mhm. bu fekk ji Pape Alé Niang ci organisateur ba police ba loolu loolu loolu police la waaw benn la rek <laughs> alkaat yi fekk Pape Alé Niang <laughs> waaw ca vulgarisateur ba. jàpp ko ñoom dañ ko dañ ko bàyyi convoqué à trois reprises waa ji faale wu ne mu ngi woon ci ay activité politique ne mu ngi doon maye doomam ne wuyu jiwul. d'accord nga gis parallèlement keneen koo xamante ni responsable la suñ ko convoqué day wuyu ji ñu fekk ko ci mbedd mi jàpp ko. Mhm. injustice mënul gën a leer loolu. dëgg la. dëgg la dëgg la te bu ñu wax waxu statut Mbàkke Mbàkke ndax sëñ Assane Mbàkke fi nañ ko jël dugal ko ci rëbës bii nii euh, te lu mu doon sëtu sëñ Touba terewul non kooku du Mbàkke Mbàkke sax ci famille Dolli bi la sëriñ absolument sëriñ mm. mm. ñuy jàpp ci ay délit d'opinion ak délit de presse dañ koy am mooy souvent dañ leen di transférer fële ca Sébikotaan te Sébikotaan ko wax wax soriwaay bi mm. euh, bu ñu la transférer foofu say mbokk déjà pour ñu lay mën a indil añak bu ñu jëlee ñoom Cheikh Omar Diagne ak ñoo ñëpp yaakaar naa ñu ngi foofu ci sébi waaw loolu xam naa stratégie la ci ñoom pour euh, visite yi <laughs> bañ a bañ bañ a bari mais dama yaakaar ne daal euh, euh, li ñu fi yëkkati woon ne NTS nouveau type sénégalais dañu ko war a valoriser ñu ñu ñu seet nañu ci ñu ciy nekkee maanaam ñu nekk Sénégal boo xam ne toujours Sénégalu weerante la ak Sénégalu weerante ak Sénégalu tëronte ak sénégalu kii far na ak man kee kee farul ak man war nañu jóge ci sénégal boobu bu ko defee ñu def ko benn gaal boo xam ne ñëpp ci war a jàpp pour mu mën a euh, atterrir fi mu war a fi a dem euh, daanaka boo seetee coow yi ci biir sénégal yëpp maanaam pënd mi jolli ci sénégal yëpp actuellement pëndum politique la mm-hmm. mais gisuloo fi kenn kuréel boo xam ne day naan nañu seet xalaat sénégal lan moo koy jëmale kanam lan lañuy def ba Euh, mën a suqaliku ci wàllu koom nan la ñuy def ba éducation bi euh, def yi nekk suñu kanam ci ci ci euh, jeunesse bi nan la ñuy def ba régler ko daanaka doo gis kuy kuy kuy wax lu mel noonu ñu ngi produire lu ba université yi yaa ngi produire mmh, ay diplômes yu bari la ñuy génne par par par kii mais ñooñu bu ñu génnee itam accompagnement bi ci war pour ñu mën a intégrer wu suqali seen askan loolu itam loolu nekk jafe-jafe am ñoo xam ne. déchet la ñuy doon yoo xam ne jotuñu àgg université seen njàng demul ñooñu itam ñu ngi ci ci ci mbedd mi. lii moo waroon nekk suñu préoccupation bu ñu xëyee c'est exactement nan la ñuy def ba sénégalais bi ci boppam nekk moyen pour suqali euh, Sénégal. mam Biram euh, junjee na sànq ne léeg-léeg euh, bu ñu la wateelee 52 pour cent am na ñoo xam ne kon wateeluñu la. Mm-hmm. mais boo seetee ñi la wateel. ak ñi la wateelul ñu ñëpp ñoo la fal ñoo ñu ñëpp ñoo la fal comme que ñoo la fal nag yow da nga war a falu pour ñoom warul am distinction warul am waratul amati couleur parce que yaa ngi doon jàkkaarloo ak ay adversaire ak ay militant ak ñi nekkul militant mais actuellement boo faloo yaa ngi jàkkaarloo ak euh, ak euh, ak citoyen citoyen yooyu nag ku ci nekk seen seen droit yi da nga leen ko war a protéger seen devoir yi tam nga war leen war leen leen euh, protéger mais bu fekkente ne boo demee ba sa casquette di am euh, di am impact ci bu fekkente ne da nga dem pour faju ji wala danga dem pour jàng ji wala da ngay circuler wala nga def loo xam ne waroo ko def sa casquette euh, di ci influencer loolu bu boo boobaa itam euh, nañu xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci benn jafe-jafe boo xam ne war nañ ci génn ñu ngi ci injustice boo xam ne war nañ war nañ ko war nañ ko bàyyi mhm. dama yaakaar ne daal politique doyoon na ci rek fal leen ma fal leen ma ñu fal la léegi nag liggéey moo ci war a topp mais bu fekkente ne année yëpp euh, dafay nekk année politique. loolu leen di fal ñuy tëgg sabar. Mm-hmm, waaw waaw xam nga bu ñu la falee bu ñu la falee normalement boo xamoon li nekk ci falu da nga war a jooy wala di lox bokk. ah Sénégal de jàmm ak salaam ci waaye bu fekkente ne da nga falee ñu lay félicité. Mm-hmm. ne liggéeyu ndey la xamoon naa ne lii dina teraanga ji. Mm. est-ce que nga falu ñu jox la responsabilité est-ce que loolu teraanga la wala responsabilité la. loolu euh, war nañ ko war war nañ ko xool parce que wolof dafay faral di wax ne nga for di fecc li nga for du feeñ hmm. bu fekkente ne dañ la fal ngay ngay ngay sabaru kay est-ce que wala nga falu rek sa mbokk yi commencé ñëw xaas ne ah, kii de dama bëggoon nga jëlal ma ko kee de amul woon liggéey ma ma bëgg nga jëlal la ko mu mel ne yëf yi mbiru paacoo la waaye nekkatul euh, yëfu ñëpp hmm. loolu itam euh, bokk na ci mentalité yi nga xam ne moo paanal suñu suñu suñu société yi il faut daal euh, ñu ñu def ndëpp national boo xam ne parce que ndëpp du dara lu dul dëpp maanaam da ngay dem ba euh, benn jël benn direction boo xam ne du boobu bu ko defee nga dëpp euh, dellu dem ci jëm ci beneen direction boo xam ne moo gën war nañu def ndëpp national pour cette priorité yi nag lan la pour seet itam kenn ku ci nekk sa devoir ak sa droit ci biir ci biir société bi nga bañ a nekk rek consommateur boo xam ne du produire wala euh, taxas demee boor comme ni ñu ko daan waxee taxas demee boor ba nga xam ne ñii nekk ci pauvreté boo xam ne seen li ñuy ndékkee amuñu ko li ñuy jëndee kaay jëndalee kaay seen doom amuñu ko ñele ji rënk ay am-am ci ci ci compte bancaire yi am fa ay at yoo xam ne laaluñu ko euh, ñaari Sénégal yooyu la ñu war a la ñu war a jaxase mu nekk benn Sénégal. Mm-hmm. ba nga xam ne euh, jafe-jafe au moins dina dina dina wàññeeku. Mm-hmm. Mm-hmm. Ousmane Ousmane Sonko def na conférence de presse Mame Birame wàcc di def ay révélation révélation yi ñëw fekk euh, li nga xamante ne moom la libération xëyee di delluwaat ci bu Boudé bi nga xamante ni moom ba muy euh, monté lii di euh, société bi ici au Sénégal mi ngi mel ni fast track la ko defee le 16 novembre 2021 la créé société bi le ñaata le 30 décembre 2021 ñu jox ko marché wu cinq milliards. Mmh, dafa mel ne dafa créé société bi pour encaisser marché bi. Mmh. c'est comme ce qui s'est passé ak Petrotim non Petrotim sax moo gën a. tey moo gënoon yàgg parce que bii novembre décembre. matu <laughs> sax un mois 16 novembre 31 décembre. ma ngoog mais Petrotim bi dañoo joxe pétrole bi ba pare doo ko créer société bi. <laughs> xam nga xam nga xam nga yooyu pam pamatar uh-huh. eh, suy am ci ab dëkk. ñu ne le ministre de l'environnement jox nañ ko ay kéwél yoo xamante ni Sénégal lañ ko may mu jàpp ci yóbbu këram. waaw. nga nekk directeur kuddu nga ne Sénégal gi jëndee nga fi kilo ñebe 4000 francs moom moom dafa doon anticiper ci yokkute ah, nga nekk géwélu président ñu ne sàcc nañ sa kër près de un milliard mm-hmm. xam nga yooyu buy am ci ab dëkk dolli ci doomu ministre bi euh, kan ah ki ñu jàpp ki dem ak faux faux billet na nga dem du Bougazelli kese doon defar ay billets ci Sénégal de. xam nga boo demee sax Bougazelli moo ko inspiré. ah mais si parce que yow yow ñu ñu ñu fal la député. waaw jox la oto de fonction. nga jël oto de fonction boobu di wër di laver ay billets. mais nit ñi dinañ nekkoon député doyul il faut trafiquer billet pour gën a am xaalis. Mm. député rek doyul. doy na ah mais bien sûr te ñoom liñ leen di tuddee ci ay faux billets ay. du doon ay cinq cent mille ki un million de ay milliards rek ngay dégg ah. Bougazelli li ñu ne moom la yoroon ci xaalis parce que euh, gi nga français yi bu ñu demee ba bëgg a sanctionné